di xalifatu cheikh Mouhamadul Mamoun euh, ñi ngi toog fii tey ci kanamu sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ alxaaji Mouhamadul Fadal Bousso di xalifatu sëriñ Afiya Bousso ku nekk xam ko ci alxuraan ci ak taxoog moom akuk jàngaleem ñu ñëw fi nag ci ndégalul kilifa gi ni Cheikh Mouhamadul sëriñ Abou Mouhammad mu ndigal nit mu jaarale ko ci muassasatu Daaru Salaam lil baxsi almi muy ñi nga xam ne ñoom la dénk wàllu saqaafa ci lu aju ci Daaru Salaam te sëriñ Sàmbakke jiite ko ci coordination bi sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Abo ñu ànd ak sëriñ Amidou Silla bi nga xam ne membre la ci ñëw ci kanam sëriñ bi ngir am tuuti ay leeral yu aju ci wàllum njàngum kaamil Daaru Salaam muy loo xam ne daa bokk ci li ëpp solo ci màggal gi sëriñ bi nag yàlla dogal moom jamono sëriñ Mouhamadul Mamoun ba léegi mi ngi bokk ci ñi ñëw ci njàng mi suñ boroom dogal mu am ci ay xam-xam yu leer moo taxoon ñu ñëw nag jéem a taatan tuuti ci lu aju ci cosaanul njàng mi ak ay jaar-jaaram ba agsi fii mu agsi ak taxawaay yi nga xam ne gis nañ ne Cheikh Mouhamadul Mamoun daan na ko ci taxaw kon ñu jox sëriñ bi rek taataan ci moom bismillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ama baadu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi nii ñëpp di siyaare ñëpp di sant ñëpp di balaax ñëpp di balaax ñëpp te fas yéene jëfandikoo ndigal xam naa lu jafalee doon nag ndax ko mënta wax kenn waru ko wax loo waaye ne ko sëñ Basiiru waxe rek def na sëñ Abo nee na naa wax dara lu ma xam ci cosaanu màggal gi ak njàng bu alxuraan mi ak doxin wi ak ñi ko jiite baag si fi ñu toll njël benn màggal gi Cheikh Modou Mamoun mu wax Cheikh na ko bis bi la sa sëriñ bu baax ba sa mag ja gane si woon laa bëgg nga may ma ci ndigal ma di ko maggal bi mu waxee sëñ gaawaan ne ko loolu di soo may naa la ci ndigal soo ko dee def nag maay doon sa ndaw maa la ko yëgle ci réew mépp at moom fu ndaw dem rek in tuuti sëñ gaawaan la fa demee bu dee leerta moo ko bind bu dee yónnee moo fa yónnee bu ñu noppee lool loolu nangul ko ba noppi <coughs> moom sëñ Tuubaa ne ku ñu liggéeyal alxuraan moo ci war a jiitu booba la suñ gaawaan wax si ma sàmba ne ko ma ànd ak waa dëkk bi ñëw kon Touba mooy ci saanu njàngum alxuraan bi ci Daaru Salaam suñ ma sàmba boobu moom rek amu fas yi ñu fi nekk su xëyee ñu takk fas wi ànd ñi ci des ànd moom dem bu ñu yendoo jàng ba takkusaan mu takkaat ñu ñibbi bu ñu xëyee delluwaat bu juróomi fan yi mat noonu lañ ko jëfandikoo bu juróomi fan yi mat booba lañ jàng ci juróomi fan yi waaw bu ñu tàmbali njàng mi sëñ Cheikh Moussa sama bàyyi mooy njëkk a jukki kaamil bi di jukki di jox sëñ Moussa Ka muy joxe ba njàng ma noppee lañ jàng ci juróom fan ya juróom ñaar fukki kaamil la loolu lañ jàng juróom fan juróom ñaari fan juróomi fan yi xam nga booba nit ñi bëriwul lool juróom juróomi fan ñu xëy di ñëw yant ba ngoon jàng juróom ñaar fukk ñu noppee suñ gaawaan jox leen fanweer benn ngurdu nit ñi nekk di yéen njàng mu bari mi xaalis bi la suñ gaawaan jox waaw boobu loolu xewagutoon loolu nag ca lañ nekk di dox ba léegi di ko toppatoo boobu ba léegi <coughs> waxtu bu nekk bu waxtu bi ñu àndandoo di jóge fii di fa dem waaw ku bi nga cee dem man oto man maa ngi njëkk a jàngi mille waa cent waaw cent trois mm-hmm. cent trois laa ci njëkk a jàng laa mm-hmm. laa nekk rek bu faati dem suñ xëyee ñëw jàng bu ngoon a ñu bu mu wàccee doxaat ñibbi ba njàng mi àgg bu ma jógee foofu itam ñu gis kër waay sëriñ mu dama yebal may ànd ak yi fi daa jàng di dem ci jamono booba dañ daal di bu ñu xëyee jàng si boo bàyyi alaaji géey moo yoroon barab ba ak kaamil yi boo jàkka ja fa nekkoon war daa seng la war daa seng la ca lañ daa yendoo jàng waa Darou Salaam ñu di jàng ci barab bi suñ ko defee ba jàng mu naa ko suñ xëyee mu dikkee maay dem ñu wàññi kaameel jox ma ak laltu yi barax yi nga xam ne dañ ko daan ñëw ba mu ko ñu tàllal ñu toog mu wàññi ñu jox ma ko andi suñ wàccee ma yóbbuwaat ko ñu wàññi ba gi àgg hmm. Hmm. ci des moom mooy ñi nga xam ne jot yàlla dogal nañ jot koy jiite suñu seex bu sa moo ko njëkk jiite suñ sa suñ masamba moo ko njëkk jiite gannaaw bi suñu seex bu sa tege ci bàyyi suñu bu sa élément suñu ma talib suñu Aliou Ndiaye suñ suñ Ndiaye Gere suñu Aliou Ndiaye suñu Abdou Samat ku ñuy wax suñu seex Kanji bi bi bi fi suñu seex Kanji jógee lañ ma toppatoo ko booba jamono si moo doroqee la waaw yor nañ ko ab diir jamono si moo doroqee bi sëñ am nekkee tam mm-hmm. maa ko daa toppatoo ba ba ba ci sëñ aboo mii mm-hmm. sëñ aboo nag bi mu mm-hmm. dafa fekk fi mu yemoon mu sof lu bari ndax da ko yaatal ba ñëpp bokk ci ñëpp refee ne ñëppay ñëw bu fekkee fukk daa ñëw léegi daanaka junni dana ñëw loolu nag yaatal la te nit lu mu nekk da koy yaatal mm. ndax ku wàññi ku yokkut yaa wàññi te yokk na ko defar na ko te ñëpp sawar nañ ci waaw kon nag li liñ ci wax daal du mënta bare noonu ndax lii ak leeral la goo xam ne mën naa am ñu bari mokkaluñ ko noonu waaw xëy na yàgg nañ ci waaye duñ ko mokkale noonu ndax moom booba ay mag ñoo daa ñëw ñu jege gade bàyyi suñu awa saw suñu mataar aminta njaay ak ñu bare bare suñu mu daawa ñu ñëpp booba dañ laa jàng si mm-hmm. ak ñu bare bare ci ca mag ña fa nekkoon mm-hmm. saa bu ñu xëy si mu deen tooñ mm-hmm. ne diw la yow de jëm ñëw xanaa da nga am dama da nga amul njël yëkkat dara jox ko te booba tam jamono bi ñu jëfandiku mag ñi dañuy ci néeg bi mu toog ci lal bi xam nga ab socc laa yor kenn ku ne ma tooñ la waaw di di ree rek waaw nag jugu ba tey daa yokk waaye jugu fa waaw li ci dolli ko itam moom suñ gaawaan yaakaar naa fekkoo ko lu bari defe naa bu fekkee ñaar la wala ñetti ëpp ko defe naa hmm. waaye mu màggal moom màggalu si Moodu Maam na moo ko ñaan di ci liggéeyal suñu gaawaan ak suñu Tuubaa liñ ciy dénkaane nag moom mooy màggal gi ku ci jàng alxuraan war nga koo fonk te sellal ko ndax kuy liggéeyal suñu ci alxuraan war nga fonk te sellal ko kem talaay la nga man te bañ dara lu dul sellal ko rek ngir jëmmi suñu Tuubaa mi ngi koy defal ndax am na boo xam ne si Modou Mamoun dañ koo soow naa ko gone yi jóge Touba duñ jàng dañuy bëri dañuy def lii wax wax ba noppee mu ne leen ndax kaamil bu nekk danañ ko ubbi ñu ne waaw kaamil bu nekk jàng wax bismillahi rahmaani rahim ñu ne ko waaw mu ne ku xëyee Touba ñëw Daaru Salaam ubbi kaamil wax bismillahi rahmaani rahim kenn mënu ko fay hmm. tey ko mu gone ko jàng doo am moom mu jàng hmm, gone yi daa jàng hmm. ñoo fay dem ba léegi ñooy jàngale ànd ak gone ñu jàngal ñu defa dem hmm. man ñu jàng tuuti dégg ñu fi woon hmm. ah, kon nag hmm. nañ ci lu baata fonk bu baax a baax a baax lu ci waaye fas rek mën na ko am ak lu mën a doon rek mën na ko am ndax liggéey suñu tubaab moom amul tànk gannaaw kanam rek ndax ne Daaru Salaam meloon boobu ak ñi mel soree na lool lool lool lool lool waaw booba bàyyi yëri jaxate moo fa daa nekk te su suñu liggéey mu mën a mm. ku nekk mu jox ko ba suñu mën moom na am yoon mm. Mm. ak mu ba yoroon jeer ba kooku de amoon xorom la moo daa arrêté saxaar geeka di ko may mu départ ba bàyyi es gi yoroon téere yi suñu liggéey jël ko bu waa nañu delloo ah, waaw waaw bàyyi jàkka lañ ko daa wax boo eh, eh, jàkk ñu jàng ba daa seng la fii jumaa nekk Oda Seng la gannaaw bi lañu ñu defee mbaaru mag mi mbaar mi ak suñu mbir def gannaaw bi ndax nag ñëpp mën nañ ca daje ñenn ñi di jàngee ca bardaas ma ñun daa jànge nag li ñu ciy dénkaane mooy nañ ci góorgóorlu bu baax a te fonk ko liñ bëgg lépp te xam ne mën na cee defaroo ndax dañoo waxoon ne suñu saaka nee na bis bi laay moom laay woote waa ko màggal màgg de ko màggal bisimilah màggalu fii Daaru Salaam waa ji fi ñëw bii dellu am xayra maram bisimilah màggalu mooy sama bis fa yàlla bul ko wute loolu nag kon jar naa ñëw jar naa ñëw ku ci dem bëgg da nga ko am te ñi dem de rëcc wuñ ko rëcc wuñ ko de waarkal waarkal ñoo ngi sant ñëpp te ñaanal sëñ boobu mu yàgg fi lool te lépp yokkoo ci moom te suñu borom defal ko wér sàmm ko te suñu tubaab ko te nangal na ci biir nangoom nga kàddu yi tënku na leer na liñ ci eh, yittewu woon a xam xam nañ ci lu kawe suñ njort ndax cosaanul kaamil yi xam nañ ko xam na it ci ñi nga xam ne ñoom la jaar ñu jiite ko. ba agsi ci yow ci ñi nga xam ne ñoo daan jóge Touba xam nañu tàmbuli bi euh, lu toll nan lañ jàngoon ak yan kilifa ñoom ñoo ko ŋànkoon ñoo ko saytoon kon day mel ne kilifa yoonu murid yëpp ñoo daan àndandoo di taxaw màggalu Daaru Salaam kon ñoom ñëpp amoon nañ yëg-yëgub ne ñoo ko bokk daan ko ànd ak Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacké kon yaakaar naa ne jariñu nañ bu baax a baax a baax ci kàddu yi te tegu ci xam-xam bu leer ndax fekke moom euh, dafa amul lu ko mën a wuutu euh, te itam denkaane bi mu ci dénkaane ci mujj gi euh, ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax rek ci yi am ci pas-pas bu wér ndax mag ñooñu pas-pas rek lañ ci daan doxe te lu ci man rawante gi daal mi ngi aju ci pas-pas bi rawante gi mi ngi aju ci pas-pas bi ndax wax nga léegi ne ña ci nekkoon te am ci pas-pas kenn rëccu ko kon loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax muy ndénkaan boo xam ne danañ ko jël te yaakaar naa ne képp ku ko déggit da nga ko mën a jariñoo bu baax ñu ñaan suñ boroom yàggal taxawaay bi bu baax a baax ñu wéral yaram bi fay leen bu baax ci barke alxuraanul karim euh, sëriñ Abu Muhammadin ñu ñaan suñ boroom yàggal ko ci suñ kanam may ko ak wér mu yàgg taxawu liggéey bu baax a baax jërëjëf aaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin naka daaru salaami rabbi wa tuuba liyakun rabbi fi ma sauduni